coalition bi nga xam ne ni dañ ko tëral ngir jëm ca élection législative yu ñu dégmal tête de liste bi di maire de Dakar Barthélémy Diaz donc euh, euh, euh, Thierno Bocoum moo nekk noonu Thierno ok donc mu ngi noonu xam naa léegi mu yegg si ñu mën a jël réaction moom itamit di ciy am solo parce que il est aussi témoin des faits bu mbir yi di am moom mu ngi ci woon moom ak Anta Babacar Ngom fekkee nañu lépp parce que ñoom itamit ci délégation bi lañu lañu lañu la ñu bokkoon donc Thierno Bokum moo nekk noonu donc euh, taxawal ni euh, président waaw merci donc euh, ñu nekk ak Thierno Bokum moom itamit mu bokkoon ci délégation bi liy xew ci kanamam la xewee moom ak Anta Babacar Ngom président mën nga ñoo dellusi ci lu xew tey ci suba ba fu mu yegg nii waaw je pense que occasion ngeen ma jox d'ailleurs par rapport ak euh, communiqué bu gendarmerie publier resement moom lañ gis léegi occasion ngeen ñu jox pour ñu wax lan moo xew ak nan la demee dama bëgg mu leer kii ñu garde fii gendarmerie baa ngi nii mm-hmm. dañ ko jël en otage ni plus ni moins parce que amul lenn loo xamante ne ne mun nañ ko ko reprocher lu dul jël as tuut si lu mu am bokk kook ay compatriotes ñu def délégation ñëw pour jébbal ko ñi nga xamante ne ne ñoom ñooy les sinistrés yu nekk fii loolu nag suñ ko reprocher nit si réew l'heure est grave ndax lu ñu xam si Sénégal mooy soo nekkee si jafe-jafe nit ñi ñëw taxawu la lu ñu xam Sénégal mooy soo nekkee si ay situation yu mel nii ku am lu mu la mën a jàppale mu jàppale la ko loolu soo ko reproché nit ça veut dire que dafa mel ni sax nekkatoo sénégalais ñun dañoo quitté quatre heures du matin dañ jógee Dakar pour ñëw ñëwu président am na sax ñu ko yëgul maanaam ñun ñëwuñu pour président ñëwuñu voyage président dañoo ñëw juste nga baal ma rek dégg nga dañoo ñëw juste pour euh, apporter suñu edd suñu taxawaay am solidarité bu ñu war a am avec les sinistrés loolu rek moo ñu indi ñu décider ko nag daal ne dañuy ñëw ba ñu ñëwee dañu njëkk a dajeek ay gendarme yoo xamante ne ne. dañu arrêté ñu taxaw ñu xool ci biir oto yi ba nuyoonteeg ñun sax et tout xam na ne ñun la ñu bàyyi ñu dem y avait pas de problème ñu pare si loolu ñu demaat rombaat ñaari gendarme ñaari gendarme kenn ki ñëw wax ak Bougane loolu vidéo boobu moo ngeen gis vidéo bi nga xamante ne dafa ne président mu ngi mu ngi Bakel alors que président nekkul woon Bakel liir nañu communiqué bu gendarmerie bi mais taxawal le temps que président romb président nañ lay rombe te président si jaww ji la jaar fan lay jaar président xanaa suy suy romb xanaa du suy romb si jaww ji duñ téye ñuy dox si suuf si ban sens la am arrêt momentané boobu loolu amul. taxawal le que président mu romb fan romb déjà donc gis ngeen vidéo bi leer na est-ce que ba ngeen di gis bu Bougane di avancer di dem gis ngeen barrage nee nañ dafa forcer barrage ban barrage la forcer y pas de barrage y avait aucun barrage da nga wax ji amul woon benn barrage ñu avancer dem ba ñu demee à 12 kilomètres de Bakel la ñuy soog a gis barrage barrage boobu yéen ñëpp journalistes yi yéen ngi woon si oto bi barrage boobu kenn forcé wu ko dañoo wàcce oto yi wàcc suñu oto comme nee nañ oto yi di jàll ñu ne ñun dañuy dox dem Bakel parce que tere ngeen ñu ñu oto yi jàll waaye xanaa mun ngeen ñu bàyyi ñu jàll parce ñi ñaa ngi jàll nga gis gaa yi ñi ñaa ngi jàll xanaa ñu ñëw problème bi pour lan ñu war a doon problème bi donc si la ñuy wàccee di dox Bougane ne moom it dafay dox ñu ñu dox ñu ñëpp ne dañuy dem Bakel fa si loolu la ñu téye parce que si communiqué bi nee nañ ba mu defee ba mu forcé barrage bi dañoo mobiliser wu ñëw ba mu ñëwee ñu jàpp ko loolu amul tamit gis ngeen ko yéen ngi fa woon ñun dañuy wax taxaw leen kenn ñëwul jàpp ko ñun ñoo wàcc suñu oto man maa ngi nekkoon si oto Bougane man ak moom ñoo ànd moo doon dawal mhm. maa toog si kanam ñu wàcc man ak moom ak Anta Babacar ñu wàcc dox ñu ñëw ñu ne ñu noo mënu leen dem dañ leen da ngeen da ngeen da ngeen di taxaw fii seen oto ñu ne waa d'accord nañ fi bàyyi oto ñu ne dañuy dox si dox boobu la ñu la ñu malmené jàpp Bougane yóbbu ko c'est ça la vérité des faits te loolu ñu nekkoon si oto yi ñu ne oto yi yëpp mën nañ ko témoigner donc lu fi am ji nga fii ay lay amu fii li fi am mooy ay instruction moo juge si ay nit yoo xamante ne ne jàpp nañ ne opposition waru fi am jàpp nañ ne war nañu xoxotal nit ñi jàpp nañ ne war nañu delloo ginnaaw suñu démocratie jàpp nañ ne war nañu viole nos libertés c'est inacceptable et nous ne l'accepterons pas nous ne pouvons et nous ne pa pas l'accepter parce que Sénégal dafa toll foo xamante ne ne am na ñoo xamante ne ñun xam nañ leen ci xeex liberté lañu la ñu ñàkkee seen bakkan xale yu mujj yi rek man mii xam naa fi koo xam ne sama xarit la ak ñeneen yoo xam ne samay mbokk lañu waxantuma ak ñeneen ñoo xamante ne ne fekkee nañ ñu boom leen ndax loolu du ñu dem ba yegg foofu ñu bëgg ñu imposer la force te nag la force de la loi la ñu wax mais soo teggee loi yaa ngi nekk ci leneen te dictature mënatul am suñu réew donc loolu moo xew c'est l'occasion de préciser ce qui s'est passé donc dañoo forcer barrage dafa forcer ba forcer wul benn barrage forcé wul benn barrage ñoom ñu ko pour ñëw mu ñu jàpp ko ba ñu ñëwee suñu oto lañ toog ñu ne ñu seen oto bi du jàll ba ñu ñëwee di wax ak ñoom ñoom dañu ne oto yi du jàll ba ñu ne oto yi du jàll si lañ ne ñun dañuy dox waa léegi damay laajte président anamu ba yoon yoon bu ñu doon baaree pour président jàll fa la président jaar mais na ñu ko wax na ñu wax président ban yoon la jaar ba ñu mën a baare yoon bi pour wax ne xaar leen d'abord ba président jàll nañuy wax président ban yoon la jaar donc lii c'est inacceptable moo tax ñuy wut lay ce qui s'est mooy dañ jàpp ni dañ ko tenir en otage d'une manière illégale et nous le condamnons merci Euh, jërëjëf kon euh, mu nekkoon kon la réaction de Thierno Bocoum moom itamit euh, fekkee mbir mi donc ok donc mu ngi noonu mu ngi noonu toujours kon Bougane Gueye yi mu ngi ci biir gendarmerie bi donc dañuy ñëw arrêter le live. Euh, ba ci kanam euh, tuuti donc euh, bu ko defee bu amee ay information yi nga xam ne ni day doog a daanoo rek ñu jottali leen ko nu mu gën a gaawee. Ah! ah